quoi. Mbay du yoon Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très très très spéciale parce qu'elle m'a été demandée de nombreuses fois du coup euh, sur les réseaux sociaux et j'ai vraiment hésité à la tourner mais je me suis lancée. J'espère que ça va vous plaire en tout cas. Du cette vidéo ce sera un kit chat make-up donc ce sera vraiment un make-up léger là je suis pas maquillée je sais pas si vous avez remarqué mais super bronzée. <laughs> Le confinement, je vous dis, ça me sert à quelque chose. Dans cette vidéo chit-chat, je vais pouvoir vous parler d'un sujet qui est d'actualité en ce moment, comme d'habitude, <laughs> donc le coronavirus. Mais cette fois-ci, je parlerai du coronavirus au Sénégal. La cerise sur le gâteau, c'est que je traiterai de cette information en Wolof. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, à me mettre un petit commentaire en bas pour me dire ce que vous en pensez de mon accent euh, assez français, on va dire, <laughs> quand je parlerai Wolof. Surtout, ne vous moquez pas de moi parce que je fais l'effort de faire une vidéo en Wolof. Et euh, voilà, suivez-moi sur les réseaux sociaux, c'est 50 Shades of Oli et euh, c'est parti. Pour commencer vidéo hobby, euh, Nitni Euh, sama papa français la ba pare sama yaay sénégalaise la euh, Sénégal laa juddu ba pare dund naa fa 12 ans. Hmm. léegi si vidéo bi benn maquillage nag bu simple laa leen di defal euh, pour jigéen ñi may seetaan ak góor ñi. mun mun ngeen ma mun ngeen ma seetaan sans sans maquillé wu de amul problème. avant ma commencé dama leen buggoon wax bu leen sew jikko sama accent bi xam naa ne accent <laughs> tubaab la bu leen reetaan na xam naa ne ñi may dégg nu fii si vidéo bi dinañ wax ni kii lu muy làkk nii ban wolof la ñu làkkal mel ni damaa mel ni naar buy làkk wolof rek mais ñëw def rek mooy utiliser ñaari euh, antiserne yu ma jënd si Yves Rocher nii lañ mel benn bi bu gën a clair ak bu gën a foncé la la jël euh, li may def mooy damay ñëw commencé jël antiserne bi def ko ci sama ci sama bët yi suufi bët bi def si tuuti antisène si suufi bët bi ngeen jël beauty bu ndaw bu mel nii après mun ngeen jël bu gën a bu gën a ngand amul problème ngeen ñëw estomper kii bi maquillage bi. li ma bëggoon waxtaan ak yéen tey mooy. xibaar yi am si mm, si Sénégal ndax euh, barki démb damaa am benn abone bu ñëw di waxtaan ak man si Snap ba pare mu commencé di ma wax naan est-ce que dégg naa affaire yi xew Sénégal ba pare ma laaj waa lan moo xew Sénégal ba jàmm la mu nettali ma li xew si Sénégal ne ma daa am ay problème ak policiers yi ak euh, nit ñi dëkk foofu nee na daal gouvernement bi dafa instauré benn couvre-feu à 20h ba pare 20 su jotee am nit ñoo xamante ne dañuy génn ba pare suñ commencé di génn lekk am policier yi yoo xamante ne dañoo benn ñu génn ñu commencé di leen di dóor ba pare ma ne ko yow li may wax nii daal yar <laughs> la policier yi dañuy dóor nit ñi Sénégal ñii ñuy génn mu ne ma daal daa am policier yu commencé dóor nit ñi bu ñu génnee lekk mais après a bi dafa dafa commencé doon benn jeu boo xamante ni nit ñi vingt si jotee lekk dañuy génn si. si mbedd bi lañ ci commencé di di xeex ak ak ak ak policiers yi. ma ne ko déedéet yow liñ may liñ may wax du dëgg waa Sénégal lu tax ñuy def affaire yu mel noonu déjà coronavirus baa ngi foofu ñun si France nii ni ñoo ngi nii confiné di tiit tous les jours ñu wax ñu ni corona bi reyaat na ay nit ba pare yéen ñu ñu confiné leen ne leen bu leen génn à 20h ngeen di génn à 20h damaa ree ba bëgg a dégg. Macky Sall de kafut Allah akbar Allah Allah ngir avant ma continuer ma continuer discussion bi euh, damay ñëw utiliser fond de teint bi euh, anti-cerne bu gën a foncé bi après ma ñëw def si tuuti si sama kanam bi mais pare li ma bëggoon wax mooy dama leen bëggoon benn passer benn message boo xamante ne dafa important soo leen gisee vidéo yi ma publier avant vidéo bi di ngeen di gis ne chaque sujet bu ma abordé ci sama chaîne bi soit euh, day concerner actualité bi soit day concerner maquillage wala yeneen affaire information yoo xamante ne daf ma daf ma neex mais fi mu ne nii monde bi dafa dafa arrêté wu. corona kese la ñuy waxtaanee soo taal bi corona soo soo ubbee journaux yi corona soo sooy waxtaan ak sa xarit corona la ba pa loolu moo tax nag ma buggoon ma ma ak yéen ci affaire corona bi il faut nag xam ne. lii li li li ñu dal nii instant bi affaire bu grave la ndax épidémie bii nii ah même suñu leen waxul sax ne affaire bi dafa grave xam nañ ni ñëpp xam nañ ne affaire bi dafa grave ndax épidémie bu épidémie bu mel nii commencé ba Chine ñëw ba Sénégal jaar ci France ci Italie di rey ay nit chaque jour. ñu gisee saa yoo leen tale télé bi ah. soo leen ko taalee rek ñu commencé di leen wax coronavirus fii coronavirus fii loolu nag mooy preuve bi ne virus bi dafa graaw bi daal euh, Chine la commencé mu mu jaar si Chine def tour du monde bi ñëw France ñëw Sénégal ah dëkk yoo xamante ni normalement dañoo am sécurité sanitaire dañoo am gouvernement bu baax dañoo am organisation nga ne ko organisation bi ñu def yëpp virus bi mun na dugg si dëkk bi di rey ay nit tous les jours ah loolu suñ la ko waxee rek il faut nga commencer di xool lu tax ñu lay jox benn couvre-feu yu tax ñu lay confiner exemple bu ma leen mun a jox ñun daal ci France bi ça fait deux semaines ñoo ngi confiné te ñun suñ confinement dafa metti ndax munoo génn mënoo def dara amul couvre-feu suñu la nee confinement confinement général la da ngay toog sa kër doo génn soo buggee génn affaire bi nga mën a def daal mooy am benn document boo xam ne da nga koy remplir pour mën a génn après document boobu exception kese ñoo mun a génn soo buggi togg nga dem di jël dem marché wala dem supermarché pour jënd ay ay ay ay affaire pour togg moom lekk nga koy mun wala instant yi sax soo amee benn xaj wala muus nga bugg koo génnee daal wala defi sport élément yooyu lekk mooy tax nga mun a génn si. soo génnee ba pare amoo papier ba wala respecté woo confinement bi di nga am amoon ba pare policiers yi dañuy ñëw dinañ la arrêté wala di nga am problème. après damay ñëw utiliser benn bronzer bu mel nii ak benn pinceau li ma doon wax sànq mooy est-ce que virus jar na ngeen di génn si mbedd bi di xeex ak nit ñoo xamante dañoo nekk fii pour régner loi bi problème bi mooy foog naa ne nit ñuy def noonu nekkuñ is ont pas de conscience amuñ conscience ndax ci seen bopp dañuy jël affaire bi comme benn jeu daal ñoom si seen bopp dañuy wax waa policiers yi daay dañ ñoo sonal bëgguñu génn dinañ génn si mbedd bi vu que dañuy dóor ñeneen nit ñi dinañ leen dóor ñoom tamit nga xamante ni kenn kenn duñu sonalati kenn duñu empêché te ñu génn kenn duñu dóorati mooy problème bi xam nga lan la problème bi mooy policier yooyu di génn guddi gi ah ñoom seen seen seen propre santé sax la ñuy en danger ndax coronavirus bi si si ngelaw bi la nekk car coronavirus bi fépp la nekk nit ñooñu nga xamante ne am nañ seen njaboot am nañu seen doom am nañ seen jabar guddi gi au lieu ñu nekk seen kër ñuy génn si bedd bi di jéem a protéger nit ñi di jéem a faire régner l'ordre bi daal pour que pour que virus bi du law ñëw si dëkk bi ba pare yéen li ngeen di def mooy da ngeen di génn si mbedd bi di xeex ak nit ñoo xamante ni dañoo nekk fii pour leen pour protéger xam naa ne li may wax nii généralité généralité la ndax xam naa ne nit ñu bari si Sénégal dañuy déglu gouvernement bi ba pare dañuy def li ñu leen di wax mooy problème bi mooy nit ñi nga xamante ne dégguñu ko ñoom ñoo nar a propager virus bi ba pare suñu propager virus bi virus bi day gën a gaaw a ñëw ci dëkk bi wax couvre-feu vingt heures man moo ma gënal confinement de ndax bëgguma sax ngeen commencé di def affaire yu mel noonu ndax soo commencé soo leen commencé def affaire yu mel noonu après di ay problèmes yoo xamante ne dina leen dina leen indil confinement confinement franchement neexul de neexul kenn mais on n'a pas le choix ndax il faut que ñu def ko pour suñu sécurité la. après pour continuer li ma nar def nii damay ñëw jël benn broche benn blush bu ma jëndoon ci NYX bu mel nii dafa xaw a rosé tuuti. franchement euh, dafay metti léegi su may gis affaire yu mel nii si ci journal yi walla nit ñoo xamante dañuy ñëw di ma ko wax ndax imaginer ngeen def loolu lekk génn dem ci mbedd bi ngeen rencontrer benn nit koo xamante da ngeen ko xam mais mais nit kooku. xamul sax ne moom am na coronavirus bi ah mu ñëw euh, laal sa loxo wala nuyu la ba pare yow nga dem jënd sa sa mburu bi wala sa yàpp bi ñibbi sa kër ah kooku moom du feebar sax ndax am na nit ñoo xamante ne dinañ am corona bi waaye du ñu porteur du ñu porteur boo xamante ne maladie bi day day développé porteur sain la ñuy nekk imagine porteur sain ba mu jox la corona bi yow. nga jot nga am corona bi feebar feebar bu métti di nga contaminé sa famille bi yëpp ba pare sa famille dina contaminé yeneen nit ba pare di ngeen feebar feebar bu métti. tamit ma souligné fee boo xamante ne policiers yi li leen di dóor tamit dafa garaaw ndax foog naa ne ci crise bi ñu nekk nii euh, jarul lii lépp jaru ko. violence yi am ak policier yi ak xeex yi am si nit ñi loolu yëpp jaru ko instant bi il faut ñun ñëpp ñu nekk ci optique boo xamante ni dañuy dañuy dañuy rassembler suñu force yi yëpp pour mun a comment dire pour pouvoir tous se soutenir il faut que nit ñi ñëpp jox soutien au force de l'ordre jox soutien ak gouvernement bi nag. ngeen nekk fii di xeex ak policiers yi il faut ngeen xeex ak virus bi xeex ak virus mooy commencer par toog sa kë toog sa kër suñ la waxee bul génn vingt doo génn di raxas sa loxo. di moytu koy waxtaanal soo gisee ne nit ki dafa commencé am ay symptômes bul ko bul bul ko xool sax. après deuxième partie bi li may def mooy damay ñëw utiliser palette bi palette bi damay jël pinceau bu mel nii pour mun a ñëw étaler affaire bi ci sama bët bi couleur bi ma nar a jël mooy bii la benn orange bu bu clair deuxième couleur bi ma bi ma nar a jël mooy bii ba pare ma def ko fii si creux de l'œil bi waa Sénégal li nga war a def mooy suñ leen ne bu leen génn ñu toog seen kër nga xamante ne virus bi sax du du am jotu propagé sax di ngeen ko mën a éradiquer jour jour bu amee ay cas yoo xamante ne dañuy commencé augmenter le fait que ngeen di toog seen kër dina def ne virus bi di ngeen ko éradiquer rapidement. fi mu ne nii pare naa faar bi ma def ci sama bët bi tuuti lekk si def après damay ñëw. Euh, tracé sama sourcil yi mais vraiment légèrement pour jeexal sourcil yi da benn gelu sourcil laa utilisé Yves Rocher toujours laa ko jëndee da ngay ñëw diw ko si sa sourcil yi pour fixer ko benn gel la damay ñëw diw tuuti mascara mascara bi may utiliser euh, Too Faced la ni la mel ba pare mascara bi Better Than Sex la tudd mais mascara bi franchement moo gën mascara yi yëpp dafa baax soo ko defee si si sa bët yi moom dangay mel ni sax dangaa dëggal dugal fossile sax li ma gën a tiital nekkul épidémie sax ndax épidémie épidémie la xam naa ne am na épidémie yu gënoon graaw épidémie bi mais li ma inquiété mooy amuñ amuñ antidote antidote bi amuñu ko fi mu ne nii même pays européens yi sax déggoo kenn di di di wax nañ gis am nañ vaccin wala wala ñoo wala trouvé nañ vaccin wala loolu ñoom ñëpp ñoo ngi nii ne dañuy def ay recherche mais fi mu ne nii kenn amagul vaccin. en tout cas pour euh, pour résumer li ma doon wax franchement li ma leen di conseiller daal. mooy bu leen génn ci mbedd bi di xeex ak policiers yi walla di def ay histoire pour seen pour seen sécurité toog leen seen kër euh, toppatoo leen si waajur yi surtout seen maam ak seen maam yi ñoom ñoo gën a fragile ndax ñoom dañoo dañoo am dañoo am at fi mu ne nii pour jeexal euh, tuto bi ma tuto bi ma def nii damay ñëw def ci sama gémmiñ bi euh, lipolèvre léegi lipolèvre révolution bu mel nii la ak benn crayon bu bu xaw a ñuul bu NYX bi ni mu mel nii rafetul de mais après dinaa def lipolèvre bi dina gën a dina gën a rafet ma ne tuuti ma fàtte sax highlighter bi li gën a important highlighter bi jeexal look bi damay ñëw def highlighter bu mel nii révolution la ak pinceau bu mel nii en tout cas look baa ngi nii jeexal naa ko Euh, j'espère que vidéo bi neex na leen en tout cas c'était un peu improvisé moo tax euh, xamuma woon lu ma leen di wax torop euh, dama jéem waxtaan ak yéen ci affaire yi xew Sénégal rek pour def prévention pour que nit ñi may seetaan ñu ñu mun a xalaat ci impact bi ñu nar a am suñuy génn wala problème yu ñu nar a indi suñu génnee ak policiers yi moo tax ma def vidéo bi ba pare dama bëggoon waxtaan ak yéen en wolof moo tax en tout cas bu leen ma ñaawal Euh, dëkk dëkk bitim réew dafa metti sax ndax doo da ngay fàtte. en tout cas euh, làkk naa leen wolof nit ñi ma doon ñaawal daal preuve baa ngi nii ne maa leen gën a dégg wolof bon j'avoue ko parfois am na mu yoo xamante ne dama leen di fàtte mooy loolu c'est normal soo dëkkatul Sénégal soo dëkkatul Sénégal da ngay fàtte moo yi mais euh, incha allah dinaa waxtaan ak sama yaay jéem a waxtaan ak moom. nga xamante ne beneen vidéo bu mën a du ma am benn problème du ma fàtte benn moo <laughs> en tout cas look baa ngi nii euh, j'espère que vidéo bi neex na leen su leen neexee daal euh, ñëw leen waxtaan ak man en commentaire en tout cas maa ngi ñaan daal euh, problème bi arrangé wu ñu mën a dund dund bu bu normal na xam naa ne en tout cas événement yi neexul kenn c'est difficile mais en tout cas léegi mu jeex massa yàlla baax na en tout cas maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp.